Alioune Ndione la. Alioune Ndione waaw. tey lan moo nekkoon jafe-jafe. sunu jafe-jafe mooy euh, sunu marché bi nga xam ne bii moom la ñu créé woon pour tund bi nga xam ne bii moo nekk ci commune Fandène euh, li ko dalee Ndufak muy lew na muy Tawa muy Kër Thiam yi ñëpp dañ leen créé woon marché bi parce que dañoo nekk ci ci rebord maanaam ci rebord ville bi yàlla def na ñu def lotissement bi ñu defee lotissement bi. Euh, manam suuf si nga xamni mom lañ doon bay suuf soosu ñu ñu jël ko def ko ay eh, dëkk waay léegi nag boo bayul tul foo jaar nga def commerce looloo taxoon ñu créer marché bi ci réñu pap saliu bay la ñu créer marché bi yàlla def ne biñ ko créé c' était pour ñun ñu maanaam ku bayutul mën a fexe nga nga yar jur mën a jaay si ñi nga xam ne ñi dañuy def petit commerce ñu dem eh, wuti ay ay ay ay dugub ay gerte ñëw ci marché bi di ko jaay ñi nga xam ne ñi jën la ñuy def maanaam jën la ñuy jaay ñu mën a dem wuti jën ñëw jaay si fii bu ko defee au moins ñu am bu bu bu ko defee am loo xam ne lii tey ñu mën koo yóbbu seen njaboot di ci suturloo depuis boobu à notre grande surprise nag ñun bi ñu fi jógee maire ñëw wuutuñu mu ñëw jël marché bi maire Augustin Tine mu ñëw jël marché bi signé ko ak euh, promoteur boo xam ne bi ñëpp xam nañ promoteur bi ni mu demee ñun ñii xam nañ ko guddi xam nañ ko bëccëg tey marché boo xam ne bii tey mu ngi war a jege à peu près boo doo financement bi boo ko doon kayma tey war na jege a peu près un milliard nga jëm wéet nit ci nekk nga si ak moom convention loolu texte décentralisation da koo dakk li nga xam ni moo li nga xam ne lii moo jaadu texte décentralisation li nga xam ne moom la wax mooy appel d'offre la war a doon maanaam nga nga def lancer appel d'offre ñëpp ñi nga xam ni yaakaar nañ tey am nañu alal mën nañ ko liggéey ñu indi seen alal ñëw wanewu ne kat man bu mu joxe marché bi nii laa koy liggéey mais weeteeg koo xam ne kii ki ñuy waxaan xaw ma Ablaye Samb weeteeg moom signé ak moom convention boo xam ne bii li ci gën a yéeme mooy convention boo xam ne bii mën nañu wax ne indéterminé la mu nga mën ne alal boo xam ne bii den nga koo jël nga may ko Ablaye Samb waaw tey nag li nga xam ne lii tey moom moo ñu metti mooy nooy signé convention ñoo waxtaan ak population bi nga xam ne bii presque ñoom ñoo moom marché bi wala mbaa ñoo ñoo ñoo ciy yaakaar ñoo waxtaan ak ñoom nga signé ak ak moom ñun vraiment loolu moo ñu metti moo tax ñun ñu tey ñun ñun ñun yëpp nañu ñëw xëy ñaxtu wane wu ko neen li mu signé ñun d' accord ñu ci tey d' si ñu ci suba. kon donc yéen bañu leen marché bi mais ni ñu ko doxalee moo leen neexul. ni ñu ko doxalee moo ni moo ñu neexul ñun li tax ñu créé marché ñun bëgg nañu marché bi am mais ni ñu ko doxalee moo baaxul parce que nooy signé convention yow léegi promoteur bi moo lay sédd. yow à une durée indéterminée loolu mën mënut a nekk. ngeen di woo kan pour ñëw jàpp mu ñëw jàpp si xeex bi. président de la république ñun ñun ñëpp képp koo xam ne kii tey mën nga ñëw jàppale ci ci xeex bi ñun ñu ngi leen di woo ñi nga xam ne ñii les droits de l'homme maanaam ñi nga xam ne ñii tey tey ay ñu ci droits de l'homme ñoom ñi nañ ci ñëw jàpp ci xeex bi ñun ñëpp maanaam tudd fanden bi yëpp gàddu gii buñ ko déggee dañuy xam ne kan mooy Alioune Dione parce que man bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo gënoon jege Pape ñoom ñu ànd di liggéey bokk naa idée bii marché bi bokk naa ñi ñi ko créé askan bi pare fii ñoom dañuy teg seen bakkan te duñ ko nangu non ñun kay nee naa la ñun suñu bakkan lañ ci teg ñun moom bañu ñu ñu ñëw toog autour d'une table ñu waxtaan ba d'accord ci ci ci ci ci ci mais tant que amul ñun suñu bakkan lañ ci def wasalaam. ñun seeti nañ chef de quartier village bi. ñëw na sax ñëw na. ñun seeti nañ chef de village bi chef de village dañuy nañu dem may leen ñu ñu dem waxtaan ak Augustin. mais xam naa ba ñu demee ci Augustin lañ ci dégg neexuloo wax donc bi ñu ñëwee nag a ah, ñu ñëw toog noppi waxuñu ñu dara ñun tam ne ñu toog xaar xaar mënatu ñu xaar léegi nag moo tax ñu génn di ñaxtu non waxuma wax waxatiit ci mom mais Mbaye Samb dafay am ay antécédents yu antécédents yo xamni ne bari ñun xamni ay ay passé yo xamni ne rafetul te moom tey il n'a pas les capacités de réaliser ce marché là boo xamni ki tay bo xolé tay maquette maquette bi wala plan bi boo demee mu sant fekk fa nga dem marché fekk fa nga foo dem fekk nga fa plan yow te ñun ñi nga xam ne ñi ñoo moom marché bi ñun xamuñu sax ma maanaam maquette bi nan la bindoo wala mbaa xamuñu plan bi nan la bindoo vraiment ñun ñun affaire boobu lu ñu métti la. voilà problème bi nga xam ne moom la ñu am tey yaakaar naa ne Père wax na ko lu toll ne marché ba am dafa nekk ci suñu côté a suñu la yaakaar ñu ci lulul ci marché bi moo tax tey ñu ñëw fi nga xam ne pour xeex li nga xam ne moom mooy suñu moomeel. jigéen ñi fii lañ seen doole tey xëy na ñu génne leen ci biir marché bi jox benn promoteur boo xam ne xaw ma du ñëw da laay koo xam ne ne déjà moom li nga xam te mooy yoon da ngay topp kon kooku bu fekkee ne fii ci suñu ginnaaw am na fi ay problème yoo xam ne ay problème terrain parcelle yoo xam ne déjà ay double emploi la kon kooku parewul pour defal li nga xam ne moom mooy marché bi Augustin nag boo xamoon ki nga xam te moom mooy Ablaye Samb du ko jox suñu marché bi ne moom nga xam tamit moom moo moom moo moom moo moom moo moom moo mën a nekk kon fi nga xam ne foofu la ñuy wax projet bi ñu ko liiree li ñu njëkk metti mooy projet boo xam ne déjà dañ ko conclure ñu tenons depuis le 12 novembre 2020 ñu bàyyi ba à nos jours en 2022 ñu devons a le protocole bi ñi nga xam tam ñoom ñoo ko fi nekkal saa ñun laajee ñun c'est confidentiel mais confidentiel ci loo xam ne yow yaa ko moom loolu amul fenn te li ci gën métti mooy projet boo xam ne à durée indéterminée fan la am bi ñu ko liiree li ñu ci a métti na ci article numéro 2 mu la mettre à la la commune de Fandène s'engage à mettre à la disposition du terrain du domaine national de contenant de 3,6 hectares 6 à Ndoufouk pour une durée indéterminée mais projet à durée indéterminée fan la am projet yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk mooy Ila Touba à durée déterminée la loolu bokk na ci li nga xam ne moom moo ñu gën a métti beneen bi ci des mooy bu ñu demee ci li nga xam ne noonu ko joxe commune Fandène ñàkkul koo xam ne yaakaar mën nañ ko jox projet bi pour mom mu tabax li nga xam moy ki bi kon duñ ko jox koo xam ne dèjà yëguñu tiinuñu xamul marché bi nan la ak naka la na ñëw sotti ay suuf waxuñu dara ñëw génne femmes yi waxuñu dara xëy wërale ay zeng waxuñu dara vendredi bi passé dégg naa ñëw na pour bëgg a tàmbali li nga xam mooy marché bi foofu nag li leen di mën a wax mooy marché bi dinañu jaral suñu bakkan tant que ñoom ñëwuñu ñu toog waxtaan ñu xam marché bi nan la ak naka la kenn du ko fi tabax ñun loolu ñun loolu ñun dañoo tëb Augustin mais ñu ngi ci interpellé le président de la république ëllëg lu ci mën taxaw ñoo xam ñu averti na leen kenn du ko tabax tey kenn du ko tabax ëllëg tant ñu tooguñu waxtaan ci ñi nga xam ne marché bi nagal ñi nga xam suñu bakkan nag lañ fiy teg liñ ci wax mooy dañuy avertir ñi nga xam autorité mooy le gouverneur préfet sous préfet

Euh, public ak des parkings nan lañ ko ñu ni commune lan la ci am un dixième sur les lan un dixième sur les baux de la banque du parking du restaurant du marché de bétail de volaille et de la chambre de froide mais ci biir lool commune Fandène lan la ci Pour promoteur bi li nga xam mom lañu am mètre carré bu ñu pour commune Fandène amna ci par mètre carré ba y ñu jox 65 états de légumes 65 tamit pour poisson 15 boutiques de type du centre commercial, ce centre boutique de type B1. dix magasin ñun ñi nga xam ne ñoo moom suñu suuf ñun ngum ndufak ngum saan lew na taw a kër ceem lan lañ ci am te marché bi nekk ci suñu suuf te biñ ko daggee suñu wayjur ñoo taxoon parce que ñoom dèjà ñoom ñoo njëkk a ñun ñoo njëkk a marché bi ñoom ñu commencé cee jaay ñu dem ba mbir mi leer ñu xëy génne leen ci marché bi ñoom ñu ngi ne la léegi fële la taxaw ci naaj bi di jaay ñoom ñu ngi nii ci biir loolu averti nañu ñi nga xam tam ñoom lañ ko sekkal dem nañu gis ak seen village andi ñu li nga xam ne ay résultats yoo wala ay réponses yoo xam ne doy nañu bi ñu li nga xam ne moom am ci écho moo li mis si boppam dafa leen ni carrément à partir tey bu fi kenn ñëwati di ma wax lu jëm ci marché bi moo tax ñun tam ñu jëlee ko nii parce que fi ñu yaakaaroon ne bu ñu woo toogee waxtaan nañ tuddee consensus mais comme moom dafa rejeté kon cela veut parewul pour delloo ginnaaw ñun aussi parewuñu pour delloo si ginnaaw lii nag plan A la plan B bi ñëwagul dañ leen doon avertir wax li nga xam te mooy tànk tey te à partir de tey bëgguñu fee gisati ki nga xam moom mooy promoteur bi ëllëg buñ bés buñu fëkk fi gisatee lu fi xam leen ne avertir nañ ñi nga xam te ñoom la ñu war a avertir kon fas yéene ci dellu ginnaaw incha allah dinañ jaral suñu bakkan ndax lii nii jihaad la ndax loo xam ne sax moomeel la suñu maam yi ñoom ñooñu ko bàyyi loon ah balaa nga dugg ci kër jàmm balaa nga def dara boo duggee ci kër jàmbur donte lu baax si nga koy def da nga waxtaan ak li nga ma waaye kër ga mais jëloo mënoo toog sa rut ruq nga xam ne foofu nga a toog dëkk bi nii population nii nga toog fële depuis boobu la ñu ñaan audience mun ñoo fee ba am audience lii nag mooy suñu audience président Macky Sall nag lañ koy adressé directement pour lu ci mën a xew ëllëg ñu xam ne ñu ne avertir na leen incha loolu daal la ñu fas yéene xeex li ñu fi boole nag yéen ñëpp xam ngeen ko jarul ñu fi jaaraat yéen jigéen ñi est-ce que ngeen li ñu wax ci texte bi dégg ngeen ko bu baax est-ce que ngeen ci kenn d'accordu ci marché bi ñu ñoo bale bu ñëwee ba mun fi di def ay zeng mu leer marché bi dépotoir mbalit la woon ñun ñoo ko bale woo village yi yëpp jigéen ñi ñuy bale ci koor maire yeeg paa yeeg ñëpp ñu nekk fi di bale ñu def fi seen biro ñun ba léegi ñu dañoo jékki-jékki rek gis ñuy teg ay zeng ñuy defar xamuñu lu xew kenn xamul lu xew gis nga jigéen ñi nekkoon ci biir fee ñu ngi leen génnee fee ci biti ñun nag li ñuy bañ moom la ñuy bañ ba tey liñ doon ba muusante di ko bañ marché bu mag di ko bañ marché xal ga tamu tamu tamu tënkuñu amuñu doole moo ñu nar a daal ci marché bi te ñun duñu ko nangu suuf si suñu maam yi ñoo ko moomoon dañoo bëgg nañ ñu dimbali ñu des fi lii du apolitique intérêt population bi la te pour Le problème, c'est que nous avons toujours voulu un Marseille. parce que nous habitons loin, presque un peu loin de la ville. Les Marseilles sont éloignés. Et c'est pourquoi les habitants de cette zone ont accepté d'octroyer leur terrain pour abriter ce marché. Mais nous n'avons pas les moyens de le construire. Et c'est pourquoi lorsque nous avons entendu que Augustin a trouvé un promoteur, nous avons applaudi, nous étions très contents. Mais nous ne savions pas que, que le promoteur, c'est un voleur du nom d'Abdoulaye Samb. Et nous avons les preuves à l'appui. Cet article est là, pour corroborer mes, mes dires. Donc il n'y a rien à refuter ici. Le promoteur, c'est un voleur. Donc, euh, nous, ne pourrons pas atteindre nos objectifs si ce promoteur continue ce qu'il a commencé. C'est pourquoi nous, nous, le demandons, nous lui demandons d'arrêter, d'arrêter. Et nous demandons à Monsieur le maire de nous chercher un autre prometteur et aussi de revoir les termes de ce contrat, parce que ça n'arrange pas les habitants euh, de cette zone. S'il le fait, il y aura la paix. Mais s'il ne le fait pas, il nous a déclaré la guerre et nous ne reculerons devant rien jusqu'à atteindre projet bon, il n'y a pas de euh, transparence. Il n'y a, aucune transparence. D'ailleurs, les conseils qui étaient en charge de ce projet avaient même euh, caché hein, euh, le, protocole. Ils avaient même caché le protocole. Donc, il n'y a rien de transparence dans cela. Euh, donc, nous, ne pouvons pas accepter ça. Donc, il faut, nous adressons à, notre correspondance à Moussé le maire. Il doit nous respecter. Le, monsieur, le, maire s'appelle Augustin Tin. Mais nous avons constaté que qu'il n'a rien réalisé au niveau de cette zone-là. Il n'a rien réalisé. À chaque fois qu'il y a élection, il vient. Il nous fait des promesses et après, il nous tourne le dos. Il ne respecte pas les promesses. Ça veut dire qu'il nous a déjà montré que qu'il n'a aucune considération pour nous. Et nous l'attendons de pied ferme au prochaines joutes électoral. Il verra de quoi nous sommes capables. Le plan B, c'est quoi ah hein? Le plan B, c'est quoi Le plan B. Non, nous n'allons pas le révéler aujourd'hui. Mais il verra. Nous sommes des serrères. Nous sommes des gens qui ne reculent devant rien, même devant la mort on est toujours fiers de nous. Ah Je pense qu'il va recevoir le message et il va faire tout pour que ce problème soit résolu. Sinon, il verra.